Bandiaky amoon ci jiite les hommes mhm. près de la police nationale d'accord xaw ma ne ndax yaa may dégg bu baax bu baax Thioro ni mu amee woon pour jiite la police nationale mhm. di jiite lépp loo xam ne dafa aju ci police noonu la amee woon un homme boo xam ne dafa jiite woon beneen corps boo xam ne kenn xamul lu tudd kenn xamul lu muy représenté kenn xamul ci ban base la représenté tey jii benn corps boobu ci wetu police nationale moom dafa jiite woon ñee moom yàgg. Mhm. Eh, bànjaki jiite ñii. xam nga boo dee xool euh, les marrons du feu. ñu ngi débuté depuis bi Macky Sall nekkee opposant di janoo ak euh, le président. bi fi nekkoon Abdoulaye Wade xam nga boobu la marron du feu amoon. Mhm. les marrons du feu depuis xoolal depuis boobu bànjaki moo leen jiite ba tey. Mhm. bànjaki bi mu demee moom ci xelam ci muusam. bi mu demee ba xam ne les marrons du feu xëy na lu ñu xàmmee la nit ñi commencé nañ di décrier pourquoi les marrons du feu ci lañ doon wax nervi yi nervi yi nervi yi mhm. mu daal di dem ñu jàppale ko mu dem créer benn société de de de sécurité boo xam ne euh, moom la tuddee sniper sécurité d'accord sniper sécurité boobu noonu mhm. xamal ne lépp loo xam ne nii commissariat gi jamono jooju ak police nationale yi woon na ko xamal ne sniper sécurité amoon na amoon na ci euh, wàll te kii moo doon jiit gi Bandiaky moo doon jiit gi kon xam nga dimension Bandiaky fi mu tolloon. d'accord déggoo ñu ne la Bandiaky bi mu bi ñi nga xam ne tey jii ñoom ñooy euh, force de l'ordre yi demee di ko jàpp. Mhm. ñi ko dem di ko jàpp bi dafa xamante ak ñoom. d'accord miinante na ak ñoom. Mhm. kon du loo xam ne nii luy soog a am la ci seen jonjonte mais tey dafa fekk ñoom. fi féete léegi ñoom féeteetuñu fa. féeteetuñu foofu. parce que ki leen jiite woon. Mhm. jël Bandiaky teg ci wetam kooku tey nekkatu fi. Mhm. te li fi nekkoon nekkatu fi loolu moom moo tax Bandiaky daal di tey ji tombe loolu du moo tax tey mu daanu. et quand il s'agit de la BIP mooy firndeel ne que cette affaire est très sérieuse. sérieux waaw dinaa ci ñëw. waaw donc Bandiaky bi ñu ko ñëwee di ko jàpp ñu bari nee nañ non dafa am jàppante amul dara. dara amu fa. Mhm. dañu ko ñëw mu xam ne ñii dañ ko jàpp si mu ànd ak ñoom dem dañu ñëw laaj soxnaam soxnaam woo ko téléphone mu ñëw ñu jël ko yóbbu. mu ñëw jël ko yóbbu. perquisitionné kër gi yëpp. Mhm. ci lañ fekk arme boobu ak leneen ak leneen. d'accord est-ce que ma ne ci gémmiñu baa njàkki lañ demee ci këram gi nekk Saly ci ci gémmiñu ba njàkki lañ dem ci yeneen ak yeneen ñu dem. Mbour kër gi ñu njëkk a wax dem Mbour. waaw bi ñu euh, perquisitionné euh, appartement bi mu am. Mhm. bi nga xam ne euh, fonction. Euh, euh, bi mu amoon. waaw euh, logement de fonction la. de fonction la waaw. bi mu bi mu wax noonu. Mhm. bi ñu ko perquisitionné pare dañoo xëy dem perquisitionné këram gu nekk Saly. waaw fekkaat fa beneen arme. Mhm. fekkaat fa ci lañ fekk un million ak yeneen bagage yoo xam ne moom Bandiaky da ci daf ci rendre compte. ok donc Bandiaky moomu. Mhm. laa lay wax ne la woon. amoon na benn dimension boo xam ne. lépp luy ñaawteef ci Sénégal Bandiaky loxoom loxo ngi ci. lépp luy ñaawteef ci Sénégal Bah Ndiacky loxo mu ngi ci Bah euh, Ndiacky dañ doon rawale alal aéroport di rawale alal feneen ak feneen ak feneen Bah Ndiacky il était sur les lieux Bah Ndiacky ñuy wax ci ay ray ay la moo tax fu ñu ko tudd nit ñëpp seen seen fit tëb ñoom waa APR ci boppam am na ñu bari ñoo xam ne ñu bokkoon ci ñoom di liggéey ñoom ñoo xam ne fu nekk nii danoo ñamee wut wax te ñu ngi koy xumtoo ci suuf parce que banjakki dafa jëloon seen fit képp kuñ ci sant leen na ngay xaw a yox yoxi sax moom mooy. et il sait trop de chose merci. waaw il sait beaucoup li mu xam waxagu ko am na ci lu bari bari loo xam ne nii dañuy bàyyi enquête bi mu dérouler parce que doo xam rek génne lépp teg ko ci table bi. alors euh, euh, tey jii quel est le rapport. encore perquisition bi nga xamante ne euh, les forces de défense jot nañ ko def ba démb Farba Ngom gis nañu sortie bi nga xamante ne effectué na ko y un rapport effectivement ñu bëri xam nañ ne que il avait euh, ay xaritam yoo xamante ne ñi ngi nekkoon euh, ci biir APR tey jii est-ce que nekkul une confirmation quand les forces de défense de sécurité demaat ci benn kër boo xamante ne Farba moo ko moom. mais Farba démb bi mu toogee di wax déggoo Farba ne xam na ba njëkk. Hmm. Farba li mu wax dafa ñëwee ne xamul ba njëkk. exactement. dafa wax xam na ko. gis nga ni ko Farba xamee. waaw noonu la ko Lat Diop xamee. noonu na ko euh, Doudou Ka xamee. Mhm. noonu la ko ñu bari bari biir APR xamee. Mhm. Bandiaky nit rek la ci sud bii la dëkk nit rek la koo xam ne nii Macky Sall ba mu xamee ne les sales boulot lii moo ko mën a may mu jël ko te ko ci ko ba mu ñu xamee ne day def te dara du du yi bañ na ko ba tuddee boppam sniper jël euh, euh, société de sécurité bi mu tegoon tuddee ko sniper sécurité. tuddee ko boppam. Mhm. nga war a xam ne. kon kii li mu sañoon romb na fii vrai tireur d'élite mooy kooku vrai saay-saay mais moom jàpp ko rek man day tax man sama xel dal sama xel dal ci yow dal ci keneen ak keneen parce que li ñu xam ci moom moo tax ñun dañ daan génn sax suñu xelu dal xam nañu ne régime changé na mais xamoon nañ ne jàppaguñu ba ki comme jàpp nañu ba ki man sama damay génn léegi dem fu ma neex est là. maître fa laa bëggoon ñëw sax gisoon nañu. clé clé d'or seen bu nekk bi ñu euh, attaqué ki nga xamante ne moom mooy Dame Mbodj. oui y a des vidéos qui euh, confirment que vraiment il était présent sur les lieux. ana ay photo génn na. effectivement. il était présent sur les lieux. ki mën a topp nag def tentation de meurtre. Mhm. kooku buñ la nee dañ koy jiiñ ci lii ak lii ak lii ak lii ak lii. Mhm. dama ne na ñëpp may nit ñi nañu may enquêteurs yu nopp ak bànjaki mhm. dinañu dégg. te ki lu jar nañ ko def pour Bandiaky xam lan la exactement nit la wala lan la il faut ñu def li ñu war a def il faut enquêteurs yi def li ñu war a def pour banja ki wax Bandiaky su waxee non Sénégal lu bari bari dina changé lu bari bari dina soppeeku te dama ne la jàpp banjaki gii mhm. gis nga ci ñu bari ñoo xam ne fi mu nekk nii dañ doon wax noppi nañ am na ñu doon xëy di cuite am na ñu doon xëy di bind seen journaux yi am na ñu doon di mhm. noppi nañ ah, li koy confirmer sax gis nañu suñu benn confrère bu nekk euh, ils ont pas intérêt à ce que banjaki parle parce que beaucoup de têtes vont tomber c'est ça beaucoup de têtes vont tomber mhm. comme nag fi mu nekk nii jël gaali sax ndax nit ki bu tiitee mën naa def lu ne jël gaal yi sax fi ne ki nii mën nañ koo jubal bëgguma sax ku ci jël gaal dañoo bëgg ñun ñëpp ñu ñoom ñëpp ñu teg leen ci raay yi bu ci kenn jël gaal parce que bu ñu mënta jaar ci suuf si mhm. mënuñoo jaar ci jaww ji mhm. boo mutu dinañ jaar ci jéer ji te ñetti yii nii na ko sunu marine nañu na na ko na na force de l'ordre yi euh, surveiller lépp moo xam mari national ci ci ci jéeri ji ci euh, géej gi mhm. ci waax yi moo xam ñi war a féete ci jaww ji. Mhm. comme wax nañ leen interdit de sortie du territoire du territoire comme wax nañu ne suuf si aussi nañ ko surveiller. suuf si ndax waxoon naa bee paase ne ku mel ni Cheikh Omar Anne nañ ko surveiller de très près. d' accord njum daa am ay ay ay gàmmu gàmmuwaat mooy une semaine après. gàmmu te am na lu mu doon waajal. moom na fa mu toog di ko wax nag la ma mbir mi fekk see fii xam nga man sama noppi day doxantu di ñëwaat la ma mbir mi fekk see fii te ñun bu ñu da dañuy alerte parce que le président de la république moo ne yoole ñun yoolewuñu pour am ci dërëm yoolewuñu pour ñu fa ñu dërëm dañuy yoole toog ci kanam askan ne leen nangam ak sàngam alors après l'audition et aussi euh, l'arrestation de Jérôme Bandiaki gis nañ ne que il a été présenté au procureur comme ni ñu ko waxee sànq donc dinañ leen toppal cette information di ngeen mën am la suite sur nos antennes de DKR 221 euh, Thioro dañuy dem sur le dernier point euh, di wax tamit sur la nouvelle sortie de Bougane Gueye Dany buy demander au ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste Tine à ce que mu retiré wu jël daal poste ministre bi teg ko parce que il a déjà affirmé son parti laataa loolu le ministre de l'intérieur moom jotoon na def benn publication di regretter tout toutefois euh, que la tournure des débats aboutisse à ce boycott des membres de l'ATEL gis nañu tamit euh, des opposants formés seen benn parti benn groupe de ko ATEL ministre de l'intérieur bi nag gis nañu kàddu yu mu yëkkati Bougane Gueye qui sort encore il s'affiche de plus en plus dans la toile publique man Bougane xam nga bi passé dama doo gé dama génnoon euh, Mamour naan mhm. bu mu nangoo nekk baayu dof yi mais Bougane nag nekk na baayu dof yi dëggantaan jaay kenn mënatu koo jiddi Bougane nag te wérut Bougane daraayu daraayu ku wér du ko def man mënuma ko <laughs> concevoir tey jii Bougane ak fii mbir mi toll sa morom yi di daw di coaliser ñii di waxtaan ci politique ñii di lii xam nga ne Bougane est-ce que xam nga ni teg xel bi mu bëggoon moom la réussir moo tax mu génn ut fu mu langaamu ci ay ministre de mais sénégalais yi dégguñu ko moo tax man euh, rus naa la rus internet yi mais kon lii mu soxteem boobu du ma sa wax. Hmm. parce mu tax dafa bëgg fu mu jafandu yow Bougane dama koy fàttali rek en 2019 taxel bi mu defoon ba boole quoi euh, opposition bi yëpp ci ginnaaw euh, kii Idrissa Seck. d'accord Idrissa sekk dem. sénégalais yi voté ko. Hmm. ba mu jël deuxième ci kanam ginnaaw Macky Sall deuxième bu jege. ñu ne déete waaye ñu ne naroon naa sax jël élection yi Idrissa Seck pare dem yekkal ko Macky Sall boobu la ñuy xam ne Bougane mooy papaay dof yi ba pare boo dofee ba pare bul soxor boo nekkul nit boo boolee dof ak ak ak ak soxor day metti ci yow dof du soxor ndax day dóore di gaañ di gajj te su boobaa dañuy takk ay loxo mu gaañ boppam foofu la Bougane di mujj man loolu laa koy wax bu mu nangoo nekk papaay dof yi mbokk nitam nit ñaa ngi dem di coaliser ñii ngi wax ñii ngi wax fii parce que dem na di wut ay link mi ngi jéem a boole euh, tey jii opposition pour ñu topp ci ginna mënu ko moo tax mu génn di am fu muy làqatu par force da ngay dem élection par force doole mbaam di nga dem élection buggaan man dama ne woon dootuma naan lacrymogène man li ma naan lacrymogène ci jamonoy Macky Sall dootuma ko naan dootuma fi nekk di xeex façon xeex boobu micro bii laa yor léegi kenn neewul kenn bul wax micro bi laay wax yor di ci wax mais dama ne di ma jaral naa la lacrymogène ndax dinaa génn teg benn euh, euh, résistance boo xam ne. Bougane <laughs> aux élections par force. di nga dem élection par force par la force doole mbaam di nga dem. parce que li tax ngay dem moom mooy Bougane faaw nga wax ñu ni nga toll ci xolu sénégal yi faaw nga wan ñu li tax ngay génn di ratarati. ce que vaut Bougane dans le champ politique. en termes de représentatif populaire bugaan bu seetee benn Anta Babacar Ngom mi mujjee tëll danaan ko demal nga toog ndax man jàll naa parrainage te yow jàlloo parrainage effectivement donc bugaan